ci armée jóge di def politique yomb na bu ñu sukkandikoo ci loolu. waaw xam nga euh, devoir de réserve defe naa ni nit ñi dañu xamul lu baax euh, signification bi parce que c'est vrai que ni ma nekk woon militaire jóge ci armée ñëw euh, soobu ci langue politique bi dafa nekkoon problème mooy après élection yi léegi nag pour xëy na man ñu noppiloo ma si la ñu génne problème mu devoir de réserve yooyu eh, bi ñu koy génnee itam dañu ni militaire même su jógee armée dafa war a toog ba am juróom benn fukki at ak juróom di soog a mën a def lu mu bëgg def waaye nag loolu dafa di loo xam ne teguñu ko si yoon ndax euh, devoir de réserve mën nañ ko comprendre su fekkente ni yaa ngi nekk en activité loolu yoon dafa maye que nga nga observé ko am na yoo xam ni waroo ko wax am na yoo xam ni waroo ko def parce que da nga représenter administration te administration bi par nature dafa neutre moo tax devoir de réserve foofu mën nañ ko comprendre maintenant su fekkente ni yow euh, pare nga comme sama cas officier supérieur nga pare dem léegi bëgg nekk citoyen normal mais am nga droit nga def ko parce que dafay am rupture ndaxte bañ nañ ko ba soo dem li ñuy bind ci sa document yi mooy dañ la radier ba pare renvoyer la ci ay foyer xam nga déjà terme boobu sax dafa xaw a kii tuuti radier et renvoyer dans ces foyers moom la ñu utiliser. Mhm. beneen bi affaire mooy euh, su ñu waxee devoir de réserve comme ñoom ni ñu ko gisee c'est-à-dire autorités yi ñu doon prétexté. Mhm. Euh, euh, dafa du noonu ndax euh, devoir de réserve dafa di loo xam ni xëy na daa ko mënu daa ko mën a wax ah bokkul ak doo ay def ay secret professionnel yoo xam ni mën nga ko dévoiler par exemple tey jii man mën naa jouir sama droit politique et civique mais par exemple du ma ñëw di lëkkaloo ay dëkk yoo xam ne ñoo ñu jege yoo xam ne ëllëg mën nañu jànkoonteeg Sénégal ma ñëw di leen wax suñu secret wu armée di leen wax nan la ñu organiser woo lan mooy suñu force fan la am doole ak fan la ñu néewlee doole yu mel noonu doo ko defee tu es un traître mais fii moom affaire devoir de réserve de façon euh, man maa ngi sama droit donc militaire bi su xasee ba coupé ak l'armée euh, dafay recouvrer dafay jëlaat li ñu wax droit civique am donc politique bi may def dafa di loo xam ni c'est normal. d'accord Ndeye di met Khady ma lay nuyu bu baax. di nuyu ñi seetaan di nuy aussi tamit euh, suñu gan yi nekk ci plateau bi. alors euh, colonel euh, bi présidentielle bi passé section recherche woolu woon na la fi déglu la ba def la contrôle judiciaire tey mën naa wax dossier boobu mën nga ñu wax dossier bi fan la toll. waaw dossier boobu nag ba léegi jeexagul c'est-à-dire contrôle judiciaire bi. xamuñ ni mu demee man ni ma ko gisee rek dafa di moyen boo xam ni dañuy jël benn épée de Damoclès tekk sa kaw bopp comme ça nga toog ni cel xëy na loolu lañ si jublu woon waaye man maa ngi toog di xaar ndax euh, dégluwuñu ma sax sur le fond. kon dégluwuñu la léegi sur le fond te léegi mot bi la ñuy def anniversaire bi. Mhm. donc euh, te gisuma lu tax euh, mu yàgge noonu mais man ni ma ko gisee rek mooy dañu bëgg. peut-être ma toog ni cell loolu la ñu bëggoon waaye malheureusement nag amuñu ko ndax xam naa ni man maa ngi nekk sama droit li may def teg naa ko fu wóor mais lañu la doon wax lañ la doon euh, toppee mën naa ko wax toppee lañ lay jiiñ hmm. bokk na ci contexte élection législative euh, présidentielle yi bind ko ci Facebook ba wax ci ay tur yoo xamante ne sax di méngale njiitu réew mi ak euh, ay suqu Macron waaw loolu may wax nag wax dëgg yàlla dellu ma si gannaaw benn yoon ndaxte xam nga 2012 euh, bi ñuy fal euh, njiitu réew mi Sénégalais yi dañu amoon yaakaar yu bari benn ci yaakaar bi moo doon ñu mën a moom suñu bopp gën a renforcer suñu moomeel boobu ndaxte am nañu indépendance naam waaye indépendance boobu dañu doon gis toujours loxo France ak ñeneen nekk ci biir ba nga xam dëkk bi aussi ñu jël ko jox ko waa bitim réew bàyyi waa dëkk bi donc dañ doon xaar si euh, président boo xam ni dafa juddu après indépendance donc xamul nooteel que su ñëwee mu renforcer suñu indépendance boobu ba nga xam ni Sénégal dana moom boppam mën na defal boppam euh, li nga xam ni moom la war def. Mm-hmm. waaye nag loolu moom moo nekkul. citoyenneté droit de réserve loolu est-ce que mën na nekk parce que yaa ngi wax ni tant que yow li ngay wax. yàqul dara ci liggéey bi nga nekkoon bu njëkk ba amul jafe-jafe mais est-ce que loolu tey di di mener ay activités citoyennes parce que gis nañ la ci ay manifestations yu bëri manifestation aar lu ñu bokk gis nañ la ci ak say mobilisation Saint-Louis mais est-ce que loolu tey véritablement yomb na. pour man yomb na ndaxte devoir de réserve waxuma fi benn secret euh, militaire euh, wala de la défense boo xam ne dana mettre en danger suñu dëkk su ma ñëwee damay wax politique. damay wax li nga xam ni moo fi xew maanaam damay dénoncer eh, luuba li fi am damay dénoncer manière bi nga xam ni moom la ñuy gérer suñu ressources naturelles yi ak di euh, mbuxum euh, alalu réew mi yu mel noonu laay dénoncé te loolu yomb na wax amul benn problème ak droit de euh, réserve. Mhm. alors merci beaucoup Khady alors euh, mon colonel gis nañ ne le plus souvent bu ñu nekkee en activité muy euh, fonctionnaire bi wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy militaires yi du ñuy wax mais bu ñu xasee ba euh, arrêté soit ñeen ñi ñu raje leen wala ñu jël retraite si la ñuy doog a commencé di génn surtout nag ci régime Macky Sall la gën a bëri gis nañ fi livre bu colonel ndaw bi également ak ñeneen ak ñeneen magistrat yooyu. lan moo waral ay loolu exactement est-ce que envie euh, bi ngay nekk ci biir dangay ngay am envie def politique te mënoo ko wala lan la exactement. non non loolu c'est que aussi ñun euh, dañu war a sargal suñu armée bi ndax dañu am armée bu professionnelle. Mm-hmm. suñu dee dugg ci armée déjà daañu xam seen devoir ndax militaire da ngay dugg nga def le serment. que ni yow pare nga pour joxe sa deret pour que askan wi mën a nelaw. Euh, tranquillement mën a def seen activité président bi mën a gouverner normalement dëkk bi nekk ci jàmm loolu moom militaire yi daf koy def mais xam na ni aussi période boobu am na fu ñu ko war yemale maanaam warul nekk di participer ci ay activités ndax aussi mooy neutralité bi ma doon wax léegi loolu dafa di lu am solo te ñun du ñu nekkee ci armée doo nekkee actif da ngay nangu loolu ba nga xam ne doo wax certes am na période boo xam ni am na benn chef de d'état-major bu ñëw essayer def benn cadre mu créer benn cadre boo xam ne dana mën a au moins euh, euh, daañ ci mën a exprimer wu euh, hommes yi mais si intérieur u système militaire bi mhm. li ñu wax ay président de catégorie dañ jël soldats yi fexe ba nga xam ni si gox yu nekk am nañ ñu leen représenté ba nga xam ni mu am un représentant national donc ñoom problème bu ñu am daañ ko jaarale seen canal sans mu jaar si voie hiérarchique bi ñëw ba egg si chef d'état-major général des armées mm-hmm. pour ñu essayer régler le problème loolu benn cadre la boo xam ni créé woon nañ ko je crois que général Gaye moo ko defoon mm-hmm. pour euh, faciliter un peu l'expression euh, des militaires maintenant soo génnee mooy li ma wax rek su fekkente ni génn nga am nga sa droit su fekkente ni bëgg nga du ñëpp koy def nag ñu bare du ñu dugg politique man ñu bari sax dañ may gis ni ma mais vraiment da nga dëgër fit looy wuti fii si fii du sa place mhm. mais je pense que ku nekk ak sa conviction te politique aussi quelquefois da nga si dugg sans même nga nga planifier ko man en tout cas dama dugg si politique sans l'avoir planifié donc euh, mais doo génnee maintenant mu jaral la wax daa wax mais nag sans nga dugg si ay détails yoo xam ni vraiment dana porter préjudice institution militaire. ak dëkk mais est-ce que tey jii ce droit de réserve mën nañ ko assimiler ak li nga xamante ne moom mooy le silence nopp bi. le devoir de réserve et silence bon moi je pense que si moi je n'adopte pas le silence vraiment euh, parce que silence boobu aussi dafa fekk bëggloo engagé wu. Mhm. mais li ñu war a xam mooy euh, il faut être un citoyen xam nga le militaire c'est un citoyen en uniforme. tenue bi moo ñu différencier ak civil yi. Mm-hmm. loolu rek la. Mm-hmm. mais une fois nga dellu si nekk civil nga nekk citoyen da nga war engagé wu parce que li may wax nit ñi tout le temps te kooku population bi dama leen koy faral wax euh, tout individu doit s'engager mm-hmm. euh, pour la l'intérêt de la collectivité loolu ngay joxe sens sa acte de citoyenneté parce que être citoyen c'est un statut le statut de citoyen maintenant citoyenneté bi pour nga exercer ko il faut que nga engagé wu donc les politiciens d'une manière générale ce sont des citoyens maintenant est-ce qu'ils sont de bons citoyens cela dépend de leur pratique de leur esprit de patriotisme et de la manière dont ils vont conduire les affaires. Mais en principe, l'engagement politique aussi, c'est un engagement citoyen. Mhm. alors Serigne Saliou bu weesoo colonel gis nañu ni que ci langue politique gi noo bari na ci ñu nekkoon militaire policier et cetera yu ci soobu ñoo xam ne autrefois ils étaient tenus au silence est-ce que finalement euh, wàllu obligation de réserve obsolète. Oh, jërëjëf Khady xam nga nit richesse bi mu gën a am ci àdduna mooy liberté. mu nekk liberté d'expression liberté de mouvement liberté de déplacement liberté d'association liberté de presse loolu dara mënu fay moo tax boo gisee ñun suñu constitution ci article huit alinéa deux dafa consacrer sept juróom-ñaari liberté civile te liberté yo civile et politique te yi ma doon wax léegi yooyu ci la ci la bokk donc ñun suñu constitution boo xoolee sax ci ànd fànn boobu am na benn avancement par rapport ak yenn règle yi nga xam moom la ñu fixé woon fii dinaa ci ñëwaat dinaa ñëwaat léegi. te règle euh, du moins euh, article constitution boobu dafa am beneen article boo xamante ne benn loi boo benn disposition légale boo xam ne moom mooy wax condition yi nga xam ne war nga mën a exercer liberté parce que liberté aussi toujours dañ koy encadrer. muy article euh, muy la loi 78 du 29 janvier 1900 1978 mooy article 14 bi moom mooy définir c'est-à-dire liberté yi nan lañ ko war a mën a exercer te loolu dina dinaa ci ñëwaat. boo demee aussi dans le code pénal article 92 dafay gën a compléter toujours cette liberté cette liberté d'expression la mais tey ñun li ñuy wax liberté li ñuy wax obligation de réserve. te sax foofu maanaam dafa am confusion boo am parce que dafa am ñaar dafa am obligation de réserve am obligation de discrétion obligation de réserve ak de discrétion dañu xaw a méngaloo tuuti mais bokkuñu ba léegi parce que su fekkente ne ñi nga xamante ne tey ñoom la obligation de réserve loolu dafa nekk disposition boo xam ñun dañ ko hérité de la troisième république de France te ñoom bañ koy def c'était non seulement pour que militaires yi duñu voter mais en même temps leen benn benn genre silence au sein même de l'armée mais ñun suñu code moo dul c'est-à-dire suñuy loi moo dul évoluer parce que le statut général des fonctionnaires bi nga xam ne moom mooy organiser la fonction publique ça c'est depuis 1961 ça c'est des lois de 1961 ba léegi lois yooyu cest à mënul évoluer alors que ñun sax suñu constitution évoluer na France bi nga xamante ne tey ñoom ñoo érigé woon loolu ñoom seen i lois évoluer na ñun ba léegi ñun suñuy code ak suñuy même suñu constitution boo xoolee sax dañu ko copier presque textuellement sur la constitution française moo tax disposition yu bëri tey comme ni nga ko waxee léegi c'est des dispositions yoo xam ne c'est obsolète obligation de réserve mooy lan obligation de réserve tey soo ko doon jël moo di ñi nga xamante ne comme par exemple yi ñoom ci activité bi ñu nekk dañ leen a tere ñu joxe ci seen xel ak sa xalaat wax ne par exemple armée bi baaxul wala et cetera joxe ci ñoom cest à activité ñu ci joxe seen opinion personnelle. maintenant obligation de discrétion bi nag moo di am boo jëlee ku mel ni am magistrat mu yore ay dossier yoo xamante ni ça doit être tenu au secret. Mhm. nga dem di ko divulguer en secret ou bien en public ou bien en privé cest à loolu wax obligation de discrétion te loolu. maanaam même soo nekkatuloo sax en activité daf la war a topp c'est parce que loolu éthique la ak déontologie même comme ni ko colonel waxee léegi obligation de réserve boobu ñoom même suñu génnee ci armée bi aussi am na loo xam ne seen éthique ak déontologie ba léegi may leen ko donc ñooy obligation de mais cela n'empêche pas que ñoom ils doivent se taire sur la marche de la République déedéet ils ne doivent pas se taire parce que même tey France boo demee euh, euh, yi am nañ am nañ syndicat dañuy wax seen i dañuy dañuy wax li leen métti ak li leen méttiwul alors que Sénégal boo xoolee ba léegi police dañ leen wax ne yéen waru leen mën am seen syndicat magistrats aussi ils s'organisent mais fii ba léegi boo gisee ñun suñu magistrats yi sax dañ leen a tënk dañ leen a tënk moo tax ma ne ñun problème bi njëkk am moo di suñuy texte moo adapté wul léegi ak ñun suñuy réalité parce que en réalité tey ñii nga xamante ne ils dans la vie militaire retournés à la vie civile ce sont des citoyens am nañ droit c'est-à-dire wax l'obligation de réserve ak l'obligation de discrétion parce que bi colonel commencé yëngatu ci politique gis na euh, le ministre des forces armées à l'époque Augustin Kébé génnoon na fi mais li mu doon wax évoqué wul benn disposition parce que bu évoqué woon disposition yi mhm. article 14 bi le statut bi bi loolu du statut général des fonctionnaires li mu wax ça a été vraiment clair mais waxu leen ñoom il ne doit pas se prononcer sur la vie de la nation c'est par rapport à leur activité militaire et par rapport aussi à des dossiers bien sûr euh, seen ñoom li ñuy yëngatu alors ci histoire politique euh, bu Sénégal euh, ci nguuru Macky Sall la ñu gisee nit ñoo xamante ne nii comme ni ñu ko expliqué léegi droit de réserve daf leen tënk ñu génn ku ci mel ni capitaine Dieye ku ci mel ni colonel Abdou Aziz Ndaw ku ci mel ni moom mi suñu invité bi ak juge dem alors c'est vrai que li ñuy wax leeral nañ ni ça n'a rien à ak li ñu doon liggéey mais tey lan moo indi motivation yooyu ñooñu génn di ŋàññ di critiquer li nga xamante moo fi nekk. non parce que xam lu tax parce que ñooñu c'est des citoyens d'abord de plus en plus dañu war a joxe seen xel ak seen xalaat dëkk bi ci nu muy nu muy doxee c'est pas parce que moi je suis militaire que aw ma benn lu ma war a mën a wax man surtout que newatuma militaire newatuma magistrat léegi je crois que man am naa léegi liberté d' expression parce que liberté d' expression c'est-à-dire constitution bi moo ko consacré gis nga ba ñuy def obligation de réserve c'était pour briser même cette liberté d'expression là mais léegi boo xoolee ñun suñu constitutionnel là sur ce plan là évolué na donc texte yi dañu war a évoluer en même temps que la constitution or on a vu que le statut général des fonctionnaires toujours c'est à un niveau statique alors que la constitution quand même est dans une dynamique de de de progressive c'est la raison pour laquelle tey des gens comme capitaine Dièye colonel Kébé ay ñoom juge juge peut que ñoom liggéey yi nekkoon presque foofu lañ doon wax obligation de réserve ou bien obligation de discrétion mais ñooñu tey bu fekkente ne dañu am loo xam dañ ko dund bi ñu nekkee seen koor yi génn am nañ droit léegi wax dëkk bi nan la war a doxee. cela ne veut pas dire que ñoom la ñu newoon ci biir armée de c'est-à-dire dañuy dévoiler ay secret déedéet cela ne pas dire que dañuy ŋaañ dañuy ŋaañ euh, seen activité yi nekkoon dans l'armée déedéet mais dinañ wax en réalité dëkk bi nii la war a tëddee nii la parce que aussi ñoom je crois que li ñuy wax. seen xel yeeg seen xalaat yi ñuy joxe c' est pour la bonne marche de la nation. voilà am na dañuy wax ne c' est la ci nguuru euh, Wàdd gis nañu ñu autoriser euh, militaires yi di voter mais tey jii nii est ce que gisoo ni foofu la ñu war a ak ci militaires yi wala la ñu war a gën a bàyyi ak seen liberté. non en fait xam nga militaires yi ñoom ba léegi am na disposition yoo xam ne comme que ñoom secteur bi ñu nekk dafa xaw a sensible am na loo xam toujours war nañ mën a encadrer l' activité militaire. donc surtout que comme ni ma ko doon waxee léegi di wax ci yenn euh, domaines yi donc ñoom je crois que fi ñu li ñu nekkee souvent aussi mënuñu leen may yenn yi ñu koy mais cela n'empêche pas que celui qui n'est plus maintenant sous le sous l'activité militaire am nga droit léegi nga dem adhérer à un parti politique te Sénégal xam nga lan moo ko yàq c'est-à-dire deux poids deux mesures lu tax mooy deux poids deux mesures le code des magistrats article 14 dafa tere magistrat mu adhérer à un parti politique. effectivement aujourd'hui il y a deux magistrats Oumar Boun Khattab Sylla je crois bu nekk DGPT petit train train bleu. kii si Mbeng comment dirais no am Amadou Lamine Dieng bi nekkoon DG ANPEJ c'est des magistrats et pourtant ils ont adhéré à l'APR et pourtant ça n'a heurté personne les magistrats ñoom wax nañ ko ils ont dénoncé ça mais ñoom ils ont répliqué wax lan moo tax ñoom ils ont adhéré à la l'APR ils ont la liberté d'arrêt à la mais nañ démissionné de la magistrature mais mënoon parce que ñoom demee man bu ñu bàyyee politique ils peuvent retirer mën nañu retrouver seeni siège au niveau de la magistrature ça veut dire que donc c'est incompatible ou soit ils disent que ñoom ils ont démissionné ou soit ñu ne ñoom démissionné wu donc da ngay a nekk fii wala nga nekk fii et pourtant les gens le ministre de la justice n'a rien dit par rapport à ça pourquoi joxe son opinion sur la marche du pays le euh, le de des forces armées de l'époque Augustin Tine gën di wax bay menacé te parce xam menaces yooyu yëpp su nga koy wax il faut nga koy motiver or si on revient simplement sur le statut général des fonctionnaires à l'article 14 bu koy régir en ce moment ñoom dinañ xam ne ils mais dañuy joxe ay dispositions de façon générale yi mais jamais ñu évoquer jamais ñu évoqué ay articles et loolu dafay glisser même peut-être une petite digression ci affaire Moustapha Diakhaté bi nga xamante moom lañ exclure de la paire ils l'ont mais ils ne pas bien motivé parce que bu fekkee ne da exclure nit da wax motivation or ils ont parlé là d'un conseil de commission de discipline alors que la commission de discipline n'existe pas dans les textes de la alors euh, alors. Euh, euh, colonel di ñëw léegi. mu jeexal également moom itam euh, ci ñu ñu raje aussi si la bokkoon euh, parce que bi mu nekkee ci biir lu ñu ko doon reproché moom mooy dafay génne divulguer ay secret yoo xamante ne dafa professionnel c'est interne mm-hmm. est-ce que aussi tamit droit de euh, la ñu ko gën a soxlaal si Sonko l'a fait mm-hmm. il est passible même devant les tribunaux mm-hmm. non seulement dañ ko war a raje mais il est passible devant les tribunaux parce que dafa divulguer ay secret par rapport à sa profession donc obligation de discrétion bi daf ko violer mais ce qu'ils disent est-ce qu'ils ont des preuves à l'appui c'est pas parce que Ousmane Sonko am na loo xam ne des fois gars yi dañu koy gis au sein de Pastef te Ousmane Sonko yeneen yi muy wax est-ce que réelement loolu ay secret la par rapport à sa profession parce que aussi lu nit ñi xamul tey dafa am benn disposition bu nekk au niveau même de benn règlement de de mois qui dit que tout agent boo gis loo xamante ni dafay yàq sa dëkk tu as l'obligation de le dénoncer sinon yow sawal boobu dañuy dal sa kaw loolu règlement UEMOA moo ko wax moo tax boo gisee même ñun noo textes communautaires dañu c'est-à-dire progressé nañ mais ñun suñu texte yi ñuy hérité de la France imagine toi texte troisième république de France alors que ñoom ils en sont aujourd'hui à la sixième euh, république ñun suñu dara évolué wul donc je crois que il va falloir que aujourd'hui ñu def benn refonte de nos textes adapté ko par rapport à nos réalités même tey sunu constitution bi soo xoolee disposition yu bari tous les pays de l'AOF tey boo ko jëloon changel turu pays yi rek tu toutes les constitutions muy Côte d'Ivoire muy Togo muy beneen changel turu pays yi rek tu as la même configuration de 1960 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui ça signifie quoi ça signifie que ñun évolué wuñu même France ñi nga xamante ne à l'époque ils avaient fait ça ils ont évolué dans leur texte parce que tey ñoom ils permettent à des magistrats de se regrouper en syndicat à des policiers de se regrouper en syndicat alors que ñun ba léegi ñun dañu tënk suñuy policiers tënk suñuy magistrats parce que tout simple au nom d'un droit de réserve boo xam ne ou bien d'un droit de mais côté magistrat yi aussi am nañ benn am nañ seen waaw mais euh, c'est-à-dire kii la rek euh, union la mais union ak syndicat ba léegi bokkul. Mhm. parce que union syndicat dafa am loo xam ne syndicat c'est par la constitution. Mhm. loo xamante ni yow am nga droit nga wax lii wax lii am nga droit sax nga dem ba grève mhm. mais tey UMS amuñ droit grève ils n'ont pas de faire la grève donc ba léegi ñoom dañ leen tënk alors que ñun suñu texte dafa war a évoluer parce que démocratie bu dee évoluer il faut que les libertés évoluent mais démocratie mënul évoluer ba pare alors que les textes n'évoluent pas donc loolu ñun mooy suñu problème jusqu'à aujourd'hui alors colonel am na point boo bëggoon intervenir tout à l'heure waaw bi ñuy wax euh, affaire militaire yi euh, euh, nekkoon armée génn ba pare dugg ci politique bi mhm. dama bëgg wax rek Sénégal Euh, am nañu yeneen exemple ñu xool doo xoolee le cas des États-Unis ñi nekk si man maa ngi foon bi ñu def campagne présidentielle bi ñu élu Trump mais ñi ko entouré yëpp pratiquement ay généraux la ñu waaye colonel ñoo xam ni ñoo nekkoon si campagne bi ku ñu wax euh, général Michael Flynn te mu amoon benn poste stratégique moo nekkoon foofu moom moo doon sax demandé si campagne bi ni lock her up lock mooy Hillary pour ñu jël ko tëj ko si kaso bi donc il était très engagé te loolu nekkul problème si ñoom parce que xam nañ ni pare nañu léegi dañu war jëriñ askan wi te loolu am solo la parce que à mon avis Sénégal peut-être euh, de commencé guñ ko def mais que ñi nga xam ni yàgg nañ am yenn responsabilité il sont habitués à travailler dans l'ordre et la méthode et dans la discipline il est bon que ñoom ñu mën a ñëw aux affaires aussi pour mën a xëy na instiller affaires yooyu si biir société bi mu nekk un aspect positif yu ñu mën a apporter. Euh, ci armée bi ngir nga am promotion dañu gis ni léeg-léeg pour nekk général dafa jafe nan la ñuy euh, euh, defee nit mu nekk général da ngay jege président bi di politique di ko jàppale ki suuf wala. <laughs> waaw loolu c'est une bonne question mais su fekkente ni dañu damay wax d'abord côté règlement. oui su ma jëlee cas officier mais c'est valable pour les sous-officiers même pour les zones troupes il système d'avancement. da nga war a remplir des critères d'ancienneté dans le grade comme ça après ñu commencer di le proposer nga jàll officier lieutenant capitaine lieutenant colonel colonel yam foofu maintenant général bi on dit que généralement c'est un grade politique donc normalement même suñu waxee grade politique parce que à la discrétion euh, du président de la République qui est le chef des armées loolu su fekkente ne appelé nañ ko dans les normes c'est-à-dire mu am mais dañu war encadrer loolu amoon na euh, général nomination la suñu waaw nomination c'est le président de la république c'est à la discrétion du président de la république mais en fait ci critères yi je veux savoir que ni est-ce que kii dafa liggéey lu tax mu war a nekk général wala non xam naa dafay jàppale président ci suuf si loolu lay ñëw voilà donc euh, am na xam ne dañ leen di nit ñi dañuy d'accord nit ñi ce sont des officiers valeureux alors mën nañu amee li ñu li ñu yore par exemple tey su ma xoolee ñu fi toog. dëgg yàlla man bu ma déggee seen nomination. dama si kontaan muy général Diop bi nekk chef d'état-major des armées ak ki nekk gendarmerie. ñoom pour la première fois gis naa ay nomination ou yoo xam ne vraiment jaar na yoon. parce que yeneen yi mooy lan politique daf siy rax man gis naa koo xam ni dafa nekk si armée di def politique ñu def ko général. tey jii mi ngi amee fonction pratiquement fonction politique parce que dañ ko def duma du ma wax turam mais c'est pour dire que ñoom waa APR am nañu ay officiers yoo xam ne ñu ngi nekk ak ñoom bon ñenn ñi dem nañu retraite donc loolu xam nga dafa dafa nekk un certain problème parce que tant que yaa ngi nekk ñoom du problème soo nekkul ak ñoom nag ko man foofu la problème bi di soqe ko mm-hmm. moo tax yenn saa yi ñuy def ay nomination yoo xam ni du jaar yoon en général su fekkente ni aspect politique bi rek moo ko yóbbu mën nañu gis seen benn recommandé wala koo xam dafa nekkoon si suuf di def di leen defal politique ñu jël ko nommé ko donc loolu am na. moo tax yooyu problème la aussi boo xam ne au niveau des armées su ñu bëggee garder une armée professionnelle am na nu ñu ko war encadrer. ba nga xam du am débordement. <laughs> là c' contraire à l' esprit même de l' obligation de réserve. Mhm. parce que obligation de réserve il faut de l' impartialité il faut de la neutralité te ñooñu bu ñu leen dugalee dans le champ politique. Mhm. ça signifie que foofu neutralité amatu fa impartialité donc ils sont les premiers à violer même cette disposition de la dix ans keneen ñëw nekk ko peut être pendant cinq ans mais pur ci ay choix purement politique ñu tak euh, tabb second bi ça peut na indi ay frustration. bon yenn yi nag doon am l'essentiel mooy que xëy na général mën na bañ répondre ak critère u ancienneté euh, mën naa joxe benn exemple par exemple euh, général Babacar Gaye en l'an 2000 bi mu ñëwee euh, Abdoulaye Wade dafa ñëw mu tabb ko mais boobu moom gënul woon ancien waaye nag amoon na une certaine compétence boo xam ni bi mu ñëwee nit ñi accepté nañu nomination boobu te loolu aussi ça a été une chance pour le Sénégal peut-être après daan ci mën ñëw parce que am na lu rëy loo xam ni préserver na ko Sénégal si ni mu ñëwee en l'an 2000 euh, à la tête des armées. Mm-hmm. Fatima alors euh, mon colonel est-ce que tey jii euh, parce que bu ñu xoolee également am na ñoo xamante ne dañoo bëgg euh, le chef de l'État mu génn ci conseil suprême euh, supérieur de la magistrature euh, tey jii yéen a ngi wax ay nomination yooyu est-ce que tey jii itam njortoo ne bu ñu demee foofu xëy na dina indi benn séparation boo xamante ne nit ñi dootuñu frustré ci biir l'armée bi conseil supérieur. conseil supérieur de la magistrature ñu ngi sàkku ci mm-hmm. njiitu réew mi mu génnee ci loxoom. Mm-hmm. léegi tey jii comme c'est lui le chef également suprême des armées. Mm-hmm. est-ce que également ci nomination yi xalaatuñu ne mën na cee génn pour mbir yi mën a am. Euh, tuuti kooku naan ça va être un peu difficile. parce que euh, si dëkk yëpp quoi que euh, président de la République dana kii mais. am na ay commission par exemple mën na nekk si armée bi wala au ministère de la défense. ñoo xam ni mën nañu étudier. Euh, États-Unis par exemple bala ñuy nommer kenn même da jaar si euh, kii bi si euh, sena bi chambre des représentants jaar dem si Sénat bi donc ñu étudier ko xool est-ce que kii am na les compétences yi nga xam ni moo tax ñu war ko nommer. Mm-hmm. donc lu mel noonu peut-être moo ñu manqué Sénégal mais mën nañ ko def waaye président bi xam naa ni dana continuer di am loxoom si nomination yooyu. Mm-hmm. alors voilà donc bu ñu mënee delluwaat ci euh, sëñ Saliou Guèye euh, yaa ngi wax sànq ni que côté liberté d'expression Sénégal avancé wu ci. Mm. mais on naa l'impression que même taxawuñ sur place dañuy reculer bu ñu gisee ba nekk ay nit yuy distribuer ay flyers kese on ñu leen di teg loxo ba leen di yóbbu numbi sin waaw mais loolu dafay euh, revenir ci li ma doon wax léegi rek xam nga bu fekkee ne constitution bi à son article huit moo maye loolu alinéa deux. moo consacré les libertés civiles et politiques ba pare joxe la loi de 78 mu encadré ko joxe la l'article 92 du code pénal je crois que nit ñi dañu war a jàngat loi yooyu aussi parce que loi bi lu mu wax la loi euh, de 78 lu mu wax mu ne il faut deux conditions tey pour ñu mën a tere benn manifestation conditions yooyu moo di su fekkee ne dafa am de sérieux de sérieuses menaces de trouble à l'ordre public su boobaa mën nañ ko tere mais aussi il faut que ci fànn ba nga am c'est-à-dire assez amuloo assez de sécurité pour mën a contrer cette menace cest dire que donc il faut que les deux conditions soient réunies parce que souvent dañ rek menace à l'ordre public mais menace à l'ordre public su ko daax donc il faut nécessairement chaque fois que bu ñu wax menace à l'ordre public il faut que aussi ñu tegaale boobu disposition pour que ñu ne manifestation bi aaye nañ ko la plupart du temps préfet Dakar soo déggee muy wax rek chaque fois dañu trouble à l'ordre public te d'ailleurs Ousmane dañu waxoon rek y a des risques de trouble à l'ordre public mais en même temps juge bi dane ko mais tu n'as pas motivé est-ce que amuloo kaaraange yoo xam ne ñoom war nañ mën a contrer cette menace là moo taxoon ñu kase loolu avec le PDS aussi au niveau du ministère de l'intérieur ça a été la même chose moo tax encore ñu kase ko donc il faut que chaque fois que ces deux conditions cumulativement réunies pour que ñu ne manifestation bi mënul am en plus ci manifestation nan lañ koy encore attroupement yi nan la yan attroupement la ñuy tere dañoo wax attroupement non armé attroupement aussi armé su fekkee ne attroupement non armé la en ce moment là ñi nga xamante ne ñooy def attroupement yooyu yow mënoo ñëw ñëw rek comme ça a été le cas dernièrement ñu doon def distribuer flyers yi moo am ñoo xamante ni des tenues euh, des policiers en tenue civile ñëw jàpp leen ñooñu ils ont violé la loi parce que loi bi lu mu wax dane su fekkee ne dafa am attroupement il faut d'abord ñi nga xam ne ils sont manifestation boobu moo di il faut le gouverneur le préfet le sous-préfet le maire et son adjoint le commissaire ou bien benn officier de police judiciaire boo xam ne dafay takk insigne pour wane ne moom il fait partie de la police te bu ñuy ñëw dañuy def sommation d'abord soit par la voie sonore soit par la voie lumineuse wax leen ne ñoo ngi ñëw dispersé wu leen wala indi lu mel ne ay genre gyrophare yi pour wax ne ne fii dañu fi tere kuy manifester loolu moom lañ leen sant pour ñu def ko te dañ ne da njëkk a def benn sommation su fekkente ne ñoom dégguñu encore nga defaat encore une deuxième sommation wax leen ne dispersé wu leen donc loi bi may na loo xamante ni tey normalement attroupement warul am ba ñu ñëw di jàpp nit mais dafa mel ni ci ñun suñu manifestation yi li ñu bëgg mooy finalement jàpp nañu parce que su fekkee ne tu es en tenue civile alors que yow loi bi waxul loolu moo tax ma ne chaque fois policiers yi loolu ñuy def aussi war nañuy jàng code pénal bi bu baax bala bala mënuy ñëw wala ñuy jàng loi bi. voilà euh, maître Ndiogou Ndiaye mi ngi koy expliquer fii. di ah. wax ni stratégie la euh, loolu loi bi nangu na ko que ni boo bëggee jàpp nit da ngay solu euh, leneen mais tey. crainte bi mooy loolu loolu moom je mérite en porte-à-faux. aucune loi ne mais crainte bi mais crainte bi tey mooy. Euh, kenn ah. ñaanu ko yàlla bu fekkente ne nii arrestation am na mu am mordom tey ji euh, famille bi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñàkk seen seen seen seen kii euh, kan la ñuy porter plainte en fait. mooy cest su boobaa police bi mooy ñàkk Sénégal mooy ñàkk parce que doomu Sénégal ci boppam te ma yàlla sax ñu egsi ci kii yooyu c'est-à-dire ci vraiment ci extrémité yooyu waaw mais ñëw loolu mu wax dafa waroon wax ban article. du code pénal moom moo wax loolu wala ban article de la constitution moom moo wax loolu boo jëlee danaan article 92 de la constitution article bi mooy wax loolu les les attroupements non armés les attroupements armés c'est-à-dire disposition bi demee na noonu loo xamante ni tey nee nañu officier de police judiciaire bi nga xamante ne war na mën a ñëw tas c'est-à-dire def sommation pour tas ko il faut d'abord mu insigne boo xam dañ ko mën a reconnaître que ça soit le préfet de Dakar le sous-préfet le gouverneur le maire et son adjoint ak le commissaire cest dire ñooñu la ñu wax ñoom ils sont habilités bu regroupement euh, attroupement armé armé ou non armé ñoom ñoo war a ñëw pour tas ndaje boobu fenn rek la wax ne bu ngeen ñëwee war ngeen a mën a user de la force mooy par exemple nga ñëw fekk ñuy yàq ay édifices publics wala ñoo xam ni dañuy dañuy xeex ay policier wala ñoo xam ne dañuy xeex seen biir foofu boo ñëwee mën nga bañ a def sommation nga directement tu passes à mais fekkee nga ñëw fekk ay attroupement am ñoo xam ne dañuy distribuer ay flyers te disposition légal bi daf ko de code bi daf ko tere soo ñëwee wax nañ la nan nga war a mën def sommation cest à il faut nga d'abord il faut nga même ay identifiant mais loolu lépp su fekkee ne defuloo ko nga bëgg a ñëw ñëw rek sol sa yére bay Faal daal di ñëw jàpp nit ki alors que loolu yoon bi waxu leen ko la loi ne dit pas ça dañ leen wax ne disperser leen bu fekkee ne maintenant dafa ay récalcitrants su boobaa mën nga dem nga leen loxo pourquoi démb moo tax démb ils ont appliqué finalement la loi alors que démb ñu doon distribuer flyers ñoom ñoo gën a bari la ñu defoon keroog ba jàpp leen pendant presque 48 heures. le lendemain ñu bàyyi leen parce que xam nañ ne nekkuñu woon ci yoon moo tax ñu moo tax ñu jàpp leen finalement ñi koy def dama ne ñoom bala ñuy dem ci attroupement yooyu nañuy lire code pénal bi parce que ñenn ñi j'ai l'impression que duñ ko lire parce que bu ñu ko liroon danañ xam lu ñuy wax parce que maître Ndiogou Ndiaye bu waxee loolu man bëggoon naa mu ne ma article bii moo ko wax te amul benn article du code pénal ni la loi de 78 waxuñu ko ni la constitution waxu ko nit aussi booy wax da koy teg ci ay loo xam lu wóor mais tey bu ñu toppee rek li charte yi ñu toppee la loi de 78 wax le code pénal article 92 bu ko toppee normalement amul benn attroupement boo xam ne fii war nañ fa mën a téyeti ne dañ leen war encadré doomu aadama yi ñuy ah. dëkkee di ko salfaañe sans réparation loolu sa mooy mooy li wax état de droit moom la moom la ñu naxasal c'est l'état parce que jàpp la euh, tëj la 24 euh, heures 48 heures après génn la nga dem qui est aujourd'hui à terre xam nga il faut que les gens sachent que gis nga gis nga gis nga jàpp nit ça doit être une exception en démocratie la règle c'est la liberté nit ñi il faut nga leen bàyyi ñuy wax li ñu soxla ngay wax cest à li ñu bëgg il faut ñu koy wax loolu constitution moo ko mayee gis nga li la constitution may xam nga constitution mooy loo xam ne ni dafa ñun ñëpp moo nekk suñu kaw moo tax boo gisee dañ naan la la république garantie à ses citoyens la république la ñu wax la chose publique donc loo xamante ni c'est la chose publique moo ko mayee benn nit mënu la ko xañ du président du ministre du commissaire du gouverneur du ministre de l'intérieur kenn mënu la ko xañ parce que loolu constitution moo la ko may mais nag il y problème parce que nit ñi duñu ñu appliquer texte yi selon ni ko constitution waxee selon ni ko code pénal waxee selon ni ko yeneen yeneen disposition légale yi waxee nan lañ koy toppee selon le bon vouloir du président selon le bon vouloir du ministère de l' intérieur nit ñi ay nit la ñuy topp dañuy jël loi bi teg ko fële donc ni ñuy salfaañe tey ak ak yeleefu doomu aadama yi teguñu ko ci benn loi ci li ko teg mooy parce neex na président de la république wala war naa neex ministère de l' intérieur wala peut loolu rek la teguñu ko feneen sëñ Saliou eh, tey ji est-ce que mën nga maa leeral un peu par rapport ak donc ci yan anam la ñu war a nekkee en en civil parce que même bu ñuy rafle aussi dañuy eh, ñu ci ëpp ñenn ñi dañuy def civil. waaw xam nga man su ma ñëwee par exemple xam nga xam nga peut-être rafle loolu dafa y a un objectif bien précis mais bu fekkee ne manifestation lañu ñu wax xam nga loolu du raaf xam lii manifestation parce que raaf peut-être am na ñoo xamante ni am nañu ay renseignements yoo xam ni pour mën a ñëw nit ñi ñu jàpp leen avec lefet de surprise pour ñu bañ a daw. loolu beneen cas la mais su fekkente ne ay citoyens ñoo taxaw ne ñun dañu bëgg joxe ay flyers ñun dañu bëgg a marche ñun dañu bëgg a def lii ñoo ce seen sont pas des malfrats ce sont des citoyens yoo xam ne seen constitution moo leen may pour ñoom ñu mën a dem ñaxtu te li mu wax. protéger na en même temps citoyens yi et en même temps aussi protéger na sax ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo war ñëw foofu parce que su waxee ne officier de police judiciaire bi suy ñëw war na mën a am insigne kooku déjà pour ñu xamiliku la pour ñu mën a xam ne yow kenn du dal sa kaw parce que police boo gisee tey ñu respecté leen cest dire c'est pas la personne en tant que telle c'est l'institution et lu koy incarné mooy tenue bi nga xam ne tey moom moom ngay man su ma dajoon tey fii benn policier un ah, solul kii mu ne ma lii ma ne ko nii mais su fekkee dafa sol tenu wax la lii su boobaa yow peut-être doo teg baat parce que institution bi ci boppam moom ngay respecté te institution boobu nag même si noo soo nekkee en public danga war a def de sorte que citoyen bi nga xamante ne moom ngay jàkkaarloo daf ko war a reconnaître pour mën a pour mën a respecter institution bi no day ñëw ci li nday di doon wax léegi su boobaa jëye mën na ci am te su ci jëyee amee bu su boobaa dafay nekk loo xam c'est trop tard te Sénégal ci boppam moo ci ñàkk parce que nous on a besoin de tout le monde ici. donc est bi ñu nekk jamono ji parce que tamit à chaque fois dañ leen di euh, toujours rek euh, di leen pointer du doigt. xam nga la police sénégalaise comme l'armée sénégalaise c'est une police professionnelle. ña fa nekk man am na ñu bari ñu ma ci xam c'est des gens qui sont très professionnels mais xam nga li bon mooy c'est-à-dire infiltration dire cest la politisation de. plus en plus de la police te loolu moo baaxul police kenn du ko politiser armée kenn du ko politiser parce que loolu dafa nekk loo xamante ni dafa sensible ñoo xamante ne nii dañu war a tëddee njaaxanaay ñooñu kenn war leen politiser parce que régime bu ñëw fekk leen fi soo gisee ñu newoon sur le régime de Wade ba léegi ñoom ñoo fi nekk muy la magistrature donc ñooñu dañu war a tëddee njaaxanaay te ñoo ñu bés bu fekkee ne dañoo jëng rek dafay indi nax euh, problème ci dëkk bi moo tax ma ne police ñoom c' est des gens qui sont professionnels ils sont sous les ordres mais aussi xam nga à un certain moment am na ordre yoo xam ne nii même ay teg sax dafa la may ne am na ordre yoo xam ne suñu la ko joxee tu as le devoir même de l' obligation de refuser parce que loolu texte yi moo la ko may. Ah. parce que dem nañ peut-être ba tey ñu bari di wax ne que police bi euh, suñu suñu force de l'ordre yi dañ leen di instrumentaliser au profit de nguur gi ils sont obligés ñoom lu ñu leen sant rek ñu def ko wala ils ont le droit loolu du seen moo waaw xam nga euh, police euh, ni ko euh, sëñ Saliou waxee police bu professionnel la comme suñu armée bi waaye politiciens yi disons l'autorité politique moo leen di dugal si li ñu nekkee parce que dëkk bi jàmm la laaj stabilité la laaj te loolu pour mu am il faut que par exemple celui qui est là le le chef de l'État et son gouvernement ñu travailler pour apaiser la situation nit ñi suñu bëggee marché ñu xam ni c'est un droit nañ leen bàyyi ñu marché la preuve c'est que masuñu autoriser benn action ba pare moom ay débordement li ñuy interdire mooy ay débordement loolu lu ko waral ça veut dire que ñoom dañu ragal dañu ragal nasaxal état de droit nasaxal suñu démocratie ba nga xam ne léegi dañu am démocratie sans démocrate mais aussi dañu rey li ñu wax la démocratie d'expression doo gisee ñuy jàpp ku jóg pour wax loo xam ni dafa sawaanoo li pouvoir bi bëgg ñu jël la daal di la euh, tëj comme ni ñu tëjee Guy Marius Sagna nga xam ni dafa jóg pour défendre population bi xam nga loolu problème la mais képp ku wax rek ñoom dañ la jàppee comme ennemi doo gisee même songo bi mu ñëwee Saint-Louis récemment gis nga ni ko doon harcelé bëggul mu am mu taxaw fenn pour wax li mu war wax parce que tout simplement dañu ragal. d' accord alors euh, tey jii boo jàngatee euh, kàddu président de la république bi mu nekk ci opposition bi euh, di dénoncer di ñaaw lu nguur gi fi nekkoon ni ñuy salfaañee ak ak yelleef doomu aadama yi di wax ni bu fekkente ne dañuy tere ni ñuy wax seen xalaat kon kaso yi nañ ko ubbi dina fees tey nan nga jàngatee tey kàddu yooyu ak démarche bi nga xamante ne tey jii pouvoir bi noonu lay doxalee. loolu mooy wax waxeet pur et simple. te loolu dafa loo xam ni dafa tas yaakaaru askan wi euh, ndax doo gisee lépp loo xam ni waxoon na ko promesse waxoon nañ fi yoonu yokkute yoonu yokkute boobu nekk plan Sénégal émergent léegi nous avons plan Sénégal émergent lépp lu ñu wax fii mu jëm à droite ñoom dañ leen di gis après à gauche loolu dafay tax ya euh, askan wi du ñu wóolooti pouvoir bi te loolu moo moo am actuellement li dafa am li ñu wax rupture de banc entre l'État et euh, les populations parce que tout simplement mënatuñu gëm li ñu wax ndax euh, dañu gis ni ñoom nekk luñ fi askan wi mais seen bopp lañ fi nekkal. rupture de bon à chaque fois président bu ñëw bëgg ut nguur gi loolu ngay wax rupture rupture mais tey jii seetlu bi gis nañ ko ci assemblée nationale ak yeneen i institution gis nañ la fa am surtout mu ñëwaat ci déclaration président bi parce que euh, wër na réseaux sociaux yi nit ñi sax vaar lañ ko tuddee. Mm-hmm. alors tey yaa ngi koy wax ni dina tax ba nit ñi du ñu amati euh, du ñu amati euh, confiance ci ñi ñu bëgg a dénk réew mi mais yéen ñi ngeen xamante ni tamit da ngeen di ut nguur bëgg nguur tey est-ce que tamit du yéen Macky Sall di def. waaw man je crois que gis nga lu am solo la moo tax politiciens yi seen bopp dañu war xoolaat seen doxalin bu baax a baax ndax léegi sax la tendance mooy lan mooy population yi dañuy xaw a détourné wu un peu si parti politique traditionnel parce que dañu gis ni ku ñëw rek ñu teg si moom yaakaar mu tas yaakaar wi dem yoona donc politiciens yi lool dañ ci war jàngat doo nekkee politicien xam ni léegi var yaa ngi fii loo wax tey du ëllëgee daañu la ko génneel na nga fexe ba am benn certaine cohérence mais aussi dafa laaj esprit de sacrifice maanaam waxtu woy wax dara tey jii nga nekk au yàlla teg la fi da ngay teg sa kàddu malgré les tentations yi am nga ni waxoon naa lii naa ko def même su fekkente ni xam naa ni xëy na amoon naa intérêt bañ ko def loolu lu am solo la je crois que tout ou tard ak nouvelle vague yi di ñëw euh, xëy na situation bi dana changé moo tax ma ni bu kenn découragé. alors euh, tey jortoon euh, ne war nañoo on peut revoir tam li nga xamante ne moom moo di arrêté Ousmane Ngom bi. bon euh, loolu aussi xam nga li ko waraloon en tout état de cause man je crois que manifestation yi dañ leen war autoriser parce que manifestation bu am rek yi fi am yëpp nit ñi li ñuy wax lu soxal askan wi la. dund bi dafa cher nit ñi génn si bit nii dund bi dafa chair suñu ressource naturelles suñu pétrole suñu gaz ñu ngi koy def ludul noonu ñu ngi koy akimoo di ko jox waa bitim réew di luuba suñu alal population bi kontaan si suñu waxee ni dañuy dem place de l'indépendance pour euh, def fa manifestation nañ leen bàyyi ñu manifester donc arrêté boobu itam affaire ragal la mais affaire sécurité nañ ko xoolaat ñu bàyyi nit ñi ñu exprimer wu parce que expression boobu mooy mooy dooleel suñu démocratie. Mhm. alors peut-être ñëwaat ci un ci Serigne Saliou tey nan nga jàngatee le fait que ñuy wéy ci di maintenir Guy Marius Sagna prison alors que ñu ñu jàppandoo woon ak moom pour même raison yi ñëpp bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër. de poids de mesures parce que Guy Marius Sagna normalement waxuma sax ñi nga xam ñoom leen jàppandoo su fekkee ne dañuy wax rek grille du palais il fallait commencer par les jeunes d'Aliou Sall. Il fallait commencer par les jeunes de la COJER qui, en pleine nuit, ont escaladé les grilles du palais. Escaladé laa de xam nga grilles yi dañ ne moo dafa jàppandu te alors qu'il ne l'a même pas fait ñii dañu tëb ñu jàpp leen sanction 15 jours de prison 15 jours. am na xam sax daf ñu fa 15 jours parce que après dañ leen génne les jeunes d'Aliou Sall dañ leen bàyyi ñu wax a wax bay bëgg dee man je me sax c'est bon peut que les gendarmes am trouble wax. loolu moi je suis d'accord pour ça escalade moom ànduma ci parce que loolu loolu moom c'est vraiment violer même l'autorité des des gendarmes qui sont là-bas c'est leur manque de respect mais nga ñëw taxaw daal di yuuxu nu et cetera loolu sax man mën naa mën naa accepter mais parallèlement il fallait aussi donner la liberté ak Guy Marius Sagna et compagnie de faire la même chose taxaw wax li ñuy wax ba géex daal di dem dem seen yoon mais on a l'impression qu'aujourd'hui soo gisee ñi ñu libéré dans un premier temps ñi nga xamante ne c'est des universitaires ou bien ils sont en tout cas ils sont membres de l'université ñu bàyyi leen deuxièmement ñi nga xamante ne ñoo nekk na Guy Marius Sagna ñu libéré leen léegi mu des Guy Marius saña parce que simplement ci chef d'accusation euh, euh, d'accusation yi dugal nañ ci loo xamant ni peut ñoom dinañ ko fa mën a maintenir ce qui veut dire quoi ce que ñoom tey Guy Marius Sagna moom lañ soxla parce que aussi boo gisee activisme bi mu nekkee ñoom sonal leen à tel point que peut-être ils vraiment le mettre au ñuuf pendant un, un certain temps or nit ñi lu ñu xamul moo di gis nga nit ay idéem kenn mënu ko rey on ne peut pas li idée nit kenn mënu ko rey Guy Marius Sagna fa mu nekk idée yam amoon tey soo ko génnewaatoon mu dem defaat la nga xam moom la defoon on veut le diaboliser <coughs> le présenter comme étant un terroriste il paraît quand même quartier ba ko def c'est un quartier terroriste mais xam nga aussi ñun sénégalais yi kenn mënuñu nax on a beau le mettre partout on a beau le diaboliser partout xam nañu c'est quelqu'un qui revendiquait vraiment pour la population sénégalaise donc li ñu war a moytu moo deux poids deux mesures ñi far ak man def leen lu leen neex ñi farul ak man lu ngeen def dinaa leen jàpp cest à que dëkk du doxee noonu day rejoindre li ki doon wax léegi ci affaire rupture boobu en réalité on a un problème de système parce que c'est le système qui ne change pas on a des alternances mais alternative ba léegi amul or il faut vraiment qu'il y ait une alternative systémique loolu mooy mën a permettre Sénégal mu jógee ci biir pan dem ci biir pan te système boobu lu ko waral moo di suñu textes yi nekk fii boobu léegi c'est des textes hérités de la France jusqu'à aujourd'hui ñun on n'est même pas capable qu'est-ce lan moo lan mooy justifier tey ñun ci suñu administration qu'on ait des gouverneurs qu'on ait des préfets des sous-préfets pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a ça alors que à l'époque ñu France bi ñu ko fiy indi fii c'était pour avoir benn dispositif boo xam ne nii répressif pour man di terroriser population yi ñun ba léegi ñu ngi continuer ci loolu qu'est-ce qui explique aujourd'hui la présence du gouverneur du du préfet cest dire au sein de Dakar et des sous-préfets lan moo koy expliquer voilà damay delloo parole bi sama conseillère yi mais il ne reste plus beaucoup de temps donc minutes yi ñu dese xam naa dañ koy consacrer le parti réew mi voilà fa cër alors tey jii ses relations ak Idrissa Seck euh, ndax avant bi ngay dugg ci euh, réew mi la wala bi nga nekkee woon ci biir armée bi la non non non bi ma nekkee ci armée j'étais un militaire professionnel. seen relation bokkul ak. Euh, après après armée bi la. d'accord alors tey jii su ma la doon laajtee seen parti boobu nan la def loo may tontu. ah ça temps yi euh, gis ngeen ni ñu ngi yëngatu di commencer di opposé wu yéen a ngi dégg ñu ngi prononcé wu par exemple si affaire hausse d'électricité yi récemment amoon na benn symposium boo xam ni def nañ ko pour wane ni nguur gi lépp li doon joxe comme argument. du argument yu valable bi ñu bëggee wax ni wooy dañ koy euh, du lu laal euh, du néew di doole yeeg yooyu yooyu yëpp dafa di ay waxu kasaw kasaw et que ah mais yéen euh, Idrissa Seck jamono ji dëkk bi ñëpp a ngi ñaxtu mais seen leader kenn dégg ko fenn silence assourdissant bon ce qui est important mooy que le parti politique bouge et s'oppose waxul man du ma nekk léegi euh, genre kuy firi ay gént mais li ma euh, mën wax mooy parti bi ñu fi di wax yéen a ngi dégg Déthié Fall ordinaire yéen a ngi dégg itam euh, Diatara Yankhoba Seydi ak ñeneen ñoo xam ni ñu ngi taxaw di waxal parti bi te di même euh, Déthié bi mu nekkee euh, euh, nu mu tudd au niveau de l' assemblée nationale. gis ngeen intervention est-ce que gisoon tey jii jamono ji la ko nit ñi gën a soxlaa muy yëkkati kàddoom nit ñi xam ne ba tey mi ngi fi di xool Macky Sall. waaw ma wax leen nag benn affaire est-ce que yéen ngi fàttaliku Ablaye Wade bi mu nekkee si opposition bi Ablaye Wade nu xaw mel nii la doon doxalee man li ma fàttaliku mooy dafa doon absenté wu lu ma ay mois ñëpp naan waaw Ablaye Wade fu mu nekk. jékki-jékki saa mu ñëw fi pendant une semaine su ñëwee lëmbal dëkk bi ba ñëpp dégg ko mu message yi mu bëgg passé mu passé ko après mu delluwaat loolu ça a payé. Fatima. <laughs> alors éventuel bi ñuy wax ci diggante Macky Sall ak euh, Idrissa Seck noo ko gisee. mooy li ma leen wax ma nekk ma bi di firi ay gént. <laughs> ndax lu mel noonu waaw mais lu mel noonu man gis nga lépp loo xam ni dafa jege pouvoir bi rek man bokk ma. lépp loo xam ni mi ngi si wetu pouvoir bi wala muy jëfa pouvoir bi bokkuma donc euh, lu mel noonu man gëwuma ko. alors tey am ay. parce que Idrissa Seck aussi. Mm-hmm. su ko doon def lu tax def ko woon bu yàgg parce que depuis 15 ans man lu ma attiré si moom en réalité mooy constance bi. d'accord parce que gis naa ni depuis 15 ans mu nekk si opposition bi aussi euh, deful benn entrisme. loolu moom ak donc. parce euh, que tey ci Saint-Louis bi nga xamante ne nii Mansour Faye moom moo fa nekk. waaw te da nga yore aussi Mansour de xam nga dafa di koo xam ne dañ ko imposer foofu. Euh, à l'époque dafa doon xeex baraaya waaye fexe nañu daal ba jox ko ko waaye waa Ndar seen bopp dañu doyle si moom dañu doyle sëkk si Mansour te Mansour Faye si boppam xam na ni amatu fa dara. Mhm. donc dafa war préparer léegi bagage am très rapidement mu dem. ñun ñi nag ñu ngi organiser wu ci Saint-Louis man li ma bëgg mooy ko opposition bi àndandoo ñu jël benn candidat boo xam daañ ko ngemb su fekkente ne ñëpp d'accord ci moom maa leen wax nii daañu dañ fa jëlee euh, Mansour Faye nu mu gën a gaawee. incha allah en tout cas merci beaucoup colonel euh, c'était un plaisir ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw kon nag di leen remercier encore une fois ci invitation bi di remercier sénégalais yi. Mm-hmm. ndax sénégalais yi xam naa ni ñu ngi souffrir. souffrance bu métti te amuñu fu ñu koy jooyee.